mu ci guddi gi mm. mu ah soo ba am na lu xew de ma ne ko lu xew mu ni ma yee am na salaamaaleykum waaw Doudou noo def euh, ba da nga takk écouteur wala nga yore bultuuf xaw naa faible de voilà kon bu dee ëmma mi ngi may dégg rek voilà bu dee ëmma mi may dégg kon mu ñëw xoolal ma dafa mel xaw na faible tuuti waa ah? waa mën naa am ci man la faible de léegi su fekkee ñuy déglu ci rajo bi normal alaaj baax na foofu waaw ñu ngi dégg. c'est bon aywa Doudou kon ñu bàyyi la nga nuyoo ak auditeur Walfadjri rek internautes yi après ñu dellu si. jërëjëf euh, sëñ Sow bu maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu. auditeur ak internet yi nga xam ne donc ñu ngi teewlu émission bi wax rek ñu ngi am mbégte lool tey euh, participer ci euh, waxtaan wi. mi ngi noonu Doudou mu mel ni dafa am foofule ca Linguère nga xam ne yaay couvrir mboolem la fay xew di koy yeggee Walfadjri ngir Sénégalais yi mën cee jot. lan nga ñu bëgg a yeggee foofa li fa xew donte ni démb woon nga ma waaye daal dafa mel ni am na loo loo ñu bëgg a waaw jërëjëf euh, Seydou Jolof nag euh, fi mu ne nii euh, jéey ju doy fi xew ci àjjuma ji ñu bind mhm. ndax benn waay bu ñuy wax sow dëkk ci barke bi moom lañu faat faat bu bu doy waar mhm. ki ko faat nag du kenn ku may benn waay boo xam ne mu ngi tudd Amadou Sow ak mhm. doomam ñoom nag euh, li tax ñu faat ko rek euh, dañu ne. Moussa Sow dafa dafa dafa dafa ëmbaloon seen doom. dafa ëmbaloon doomu waa ji. di ëmbalee ba pare nag. Euh, daal di ko fa bàyyi nag daal di dem takk beneen xale bu jigéen. Mm. boo xam ne nag mu ngi dëkk ci seen wetu kër. Mm. loolu nag daal di leen métti. Euh, ci noonu nag ñu koy rëbb ba yàlla def ajjuma ji passé nag. Mm. ñu daal di dajeeg moom ci àllu barke ji bi. Mm. Euh, daal di ko nag euh, song ak ay jaas yi caw ko daal. Mm-hmm. ba moom Moussa Sow moomu nag daal di mujj ñàkk bakkanam ci hôpital Magatte mm-hmm. ndax dañ ko gaañ gaañ yu méttee méttee métti. dañ mm. ko jàllalee nag ci hôpital Magatte daal ci la ñàkk bakkanam. brigade bu gendarmerie bu Linguère nag teg na loxo ki nga xam ne moom mooy. Amadou Sow ak euh, doomam bi nga xam ne nag ñoom ñoo faat kii di Moussa Sow. Mhm. léegi avant loolu di xew ndax jot ngaa amee xabaar ni bi mu bëggee ndaw si avant ëmb gi di am dañoo bañoon wala sëy bi dafa xawoon am ay difficulté wala euh, yooyu yëpp amu ci woon. waaw loolu loolu loolu am na ci ñoom euh, ci xibaar yi nga xam ne daal taataan nañ ko. Mhm. xamal nañ ñu daal ne góor gi moom daal mosul woon daal di may xale bu jigéen bi waajooju di Moussa mhm. loolu sax moo tax xam naa. ba li xew seen diggante. ndax dégg naa bi nga xam ne mi ngi koy ngoro. Euh, saa su fa masaa dem daal dañ koy fitnaal. di ko toroxal. loolu nag xam naa ñàkkul moom moo poussé ak xale bu góor bi. moom ba mu def li nga xam rek moom mooy euh, maanaam daal xale bu jigéen bi. waaye nag euh, bi mu defee loolu ba pare. li mu ci def moom it mooy dafa dem daal bi takk nag beneen xale bu jigéen boo xam ne. ci seen wetu kër la dëkk loolu nag dafa métti lool famille bi. xam naa rek moom moo moom moo waral. Euh, ñu def li nga xam ne rek moom mooy mooy mooy faat ko muy nag jëy a xam ne daal mhm. euh, ci ci ndax euh, daanaka moom la ñuy waxtaanee jamono ñu toll. ginnaaw ëmb geeg am doom gi ak bi muy takkaat moom waa ji soree na wala ci liir bi bi muy tooy ci la takk sorewul sorewul daanaka ñaari weer jàpp ñetti weer rek la. Oh. ndax ñoom sax ci li ma ci xibaar yi nga xam ne taataan nañ ko ñoom sax mujjoon nañu mujjoon nañu nangu. Euh, moom Moussa Sow. Euh, mujjoon na euh, ëmbal seen doom ba pare. ñoom sax dégg naa doon nañ waxtaan ci suuf daal ngir xool. ñu ngi ko koy maye waaye gis nga li mujj xew daal seen diggante. macha allah jërëjëf kon muy lu métti ñu ngi koy jaale kon mboolem tund yu ne foofu lay ca Jolof di wax ni lu métti la yàlla na fa yam jërëjëf Seydou jërëjëf aywa jërëjëf Doudou kontaan nañ jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup merci aywa ñu ngi koy gërëm bu baax a baax moom euh, Doudou Thiane moo nekkal wal fajiri foofu la ca Linguère ak Jolof la fa xew yëpp ci ay xibaar ngeen di ko taataan yenn saa yi moo leen koy yegg kon daal ma jigéen muy loo xam ne man de c'est la première fois ma dégg ko mm-hmm. ëmb am na ca mbir ya ginnaaw ba daal takk ko nee nag fu ñukk dem takk gi nee na gone euh, lenn ca famille ba tëru ko ba jàpp ko caw koy jaasi ba mu sedd waaw mm-hmm. te jamono jooju ñu ngi doon wax ne dootuñu nangooti képp ku yor arme mais mm. parfois euh, pëli moom ak ñoom ak sàmm ñoom ñoo ñooy ànd parfois dañuy ngànnaayoo seen yi ni mel mm. mais tamit loolu war la jox raison ba nga rey ku nga xamante ne ni yow peut-être amaana ba mu ñëwee di bëgg sa doom boo ko mm. ko mayoon lii lépp du am mm-hmm. mais parfois xeeb nit wala genre bëgg bañ sa doom ku muy bëgganteel nga bañ ko ko may mm-hmm. ñoom it bu ñu xamee ni bañ nga rek dinañ jéem a tekk yeneen i pexe yoo xamante ne ni wala yeneen stratégie mm-hmm. ñu si bëri sax li ngay dégg ñu lay wax ne la ba ma ko bañee may dama dem ñaani ji ko ñu lànkal ma koo may moo tax ma ëmbal ko mm-hmm. parfois parent yi dañuy ñàkk pexe boobu dootuñu amati choix dañuy dañuy maye xale bi mais dem di rey moom sooy bu loolu moom fa dëgg yàlla. yéen xam naa ni li waaj a takkee ci biir dëkk baat xay na est-ce que moo indi ñëg-ñëg yi ah, xol. mais papa jaa ko bañoon xam bu fekkee da ngay bañ loo xamante ne yow leer na ne bu ëllëgee lu si mën leneen la fekkee da ngay nangu kon mhm. teelal a la nangu rek. Mhm. bu boobaa ëmb doonul woon am dinañ leen maye ci farataas yàlla ak sunnas Muhammad bu boobaa joo doom ji ci juddu nii nii ñu wax ni doom juddu na ci bu ëllëgee bu doom ji màggee mu ne ànd sama papa ñu ni sa maama ko rayoon gàcce boobu sooy bu loolu dara jaru ko ci àdduna Ndiogou. waaw. lu metti moo xew. d'abord na trop ñu ngi ñaanal ki génn àddina. Mhm. xam nga aussi tamit ñi nga xam ni ñoo def jëf jooju dafa mel ni ñoom suuraale wuñu xale bi. waaw doom ji. waaw mhm. parce que loolu moom xas na ba am. Mhm. Euh, tey li nga xamante ni bi moom mooy jëf ji nga xam ni moom lañ jëf. ñoom dañu jàpp ni waa ji da leen di kókkali waaw parce que takk bi mu takkaat ci koñ ba si te ñoom ñi ngi nee na ñi ngi doon euh, waxtaan pour xool nu ñu ko ko mayee mhm. mais léegi bu fekkee ne est-ce que kon kële yëgoon na ni ñu ngi waxtaan ñi ngi waxtaan pour may ko ko avant muy takk est-ce que ah. yëgaloon nañ ko ko enquête bi bu xóotee sax mën naa am ka def loola mbaadu ku ko bëggoon ah ma ne man est-ce que du ko bëggoon ndaw si. ah xam nga bu enquête ba fa dool nii ñoom tey. noonu man dégg na ne xaw ma nee nañ xaw ma ca tool ya lañ daje. ci àll ba daal xaw ma lañ daje. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, après ci lañ ko cor jaasi. Mm-hmm. ay jaasi. du noonu. si mais en tout cas daal. mbir la moo xamante ni bii daal wax parce que def est-ce que amul sax ay wax yu amoon entre ñoom ak ay wax. waaw dafa naa dégg naa ko déggoon naa histoire bii de. ah bii nii ci week bi waaw dégg na dégg naa ko maanaam histoire bi nga déggoon nu ci wax yi demee woon nu wax yi demee woon ah nu wax yi demee woon euh, parce que daal xam naa ne daal bi ñu jógee ci tool yi da lañ fekk waa ji muy sàmm ok muy mooy ki ñu rey waa ji waaw defe naa sàmm la ok buy sàmm ay kiiwam ak yooyu mhm. après jëf naa ci lañ problème am bañ faat ko mais lu ci am daal hmm. ñi nga xam ne faat nañ moom hmm. euh, na saf ci ñoom sàpp parce que faat nit moom jaaduwut waaw rey rey nit. mais néeg nañ tiim nit di ko ci ay jaar vraiment xam nga loolu kenn mës koo gis. waaw surtout koo xamante ni kii yow boo demee doomam a ngi ca sa kër. wallaay xam la dëgg la. donc daal nañu xool ba xam. régler problème ba ba créer ay problème waaw parce que il paraît que waa bi ñu ko kiiwee faatu ci saa si. hôpital hôpital la faatoo quoi. waaw waaw waaw moo tax enquête bi yomb quoi. waa ji moo wax ne. si ñoom la. ñoo ko kii quoi. en tout cas doom ji bu màggee de moom dina am lu ko metti trop. sa maama. rey sa baay. rey sa baay. Ah. xam loolu doy na waaw. ak ak histoire bi mu nar a sulliwaat mooy lu tax ñu rey ko mooy yow kat euh, hors mariage nga ah, woon genre yooyu. après ñu bàyyi la bàyyi sa yaay takk keneen. waaw mais waa ji bu mu demee di ñaani début bi dañoo bañoon. ñoom ñoo bañ quoi ñoo bañ. loolu tamit ci la suy bu. waaw bañ googu man kay man nag bañ googu jaax ah. waaye nag nit nag am nga droit ni bëgguma kii takk sama doom loolu moom ku ne am na ci droit waaye nag waaw waaw waaw léegi nag loolu nit day bëgg doomu nit ñu ni duma ko ko may waaw mais léegi nag loolu ma jigéen wala ay problème casque ak yu ni mel xam nga man ma ci d'accord léegi bu nit ñëwee di fréquenter sa doom boo ko mm. nërta may mm. nga ko teel a ah, boo ko arrêté yow mën nga jàpp ne arrêté na mais bul xam fu xale yi di dem di gisante sama yóbbu mais complicité loolu yëpp mënoo ko contrôler ak sa doom dafa war a am après ngeen wax xale yi li ñuy def yëpp seen parents yi duñ ko yëkk ok xam nga xam nga boo ñun ñi mhm. boo seetee suñu dund mhm. maanaam euh, dund euh, kii maanaam dangay ngay impliqué wu sa doom mhm. toppatoo ay bëgg-bëggam say bëgg-bëgg ngay toppatoo yow comme comme maanaam dangay jël sa doom yar ko mais yow yaay sax tombé amoureux ki ki mu war a bëgg yow yaa war a bëgg kooku da war ko mu sëy ak moom doo bàyyi moom mu bëgg maanaam doo bàyyi moom mu bëgg maanaam da ngay écarter bëgg-bëgg sa doom teg fële léegi yow nag jiital yow say bëgg-bëgg ku ñëw yow yaay xool ndax kii war naa mën a kii calculer woo ko ci waaw daan ne kii baaxut kii lii gaaw ci jigéen day rëy bët waaw comprendre nga mhm. am na loo xamante bi yow yaay yow yaay contrôler bëgg a contrôler tamit fi muy dugg ak yooyu yëpp xam nga pareen saay li am solo mooy euh, nit moom yar ko mhm. comprendre yaral sa doom éduquer ko mhm. boo ko éduquer ba noppi nag def ci moom ay valeur ak yooyu loolu mooy li nga def ci moom mais maanaam dañ lay def ba noppi wóoluwuñ la mhm. maanaam dañuy def yooyu ci yow li ñu def ci yow yëpp mhm. mais mënuñu laa bàyyi yow fi nga war a choisir ñu nga choisir mhm. ñu ne nañ la choisiral moo tax jigéen ñi tamit bon durant seen dund tamit euh, loolu sax góor yi ñoo ci tane jigéen jigéen ñi moom dañuy nekk ay victimes yu garaaw dañuy sonn de waaw parce que parents saa yi jigéen ñu bari fii ci réew mi. Hmm. Euh, ñi ñu bëggoon sëyu ñoog ñoom. allahu akbar ñu ci bari. waaw looloo tax tamit pareen saay yenn yu bari ngay nga koy gis. waxi sëñ Baara ji day ñëwaat maay sa kilif. waaw te day am yoo xamante ni bii tey. Hmm. mën na causer yeneen. mën na dem ba jigéen ndaw si am jëkkër am far. am yeneen te yooyu yëpp. li koy indi. Hmm. pareen yaa ko mayut ki nga xam ni moom la. bëgg dëggantaan léegi nag boo ko forcer keneen. léegi nag muy maanaam kële la enregistré woon ci boppam ba pare di def ki am na ñoo xam ne bi biñ leen di takk dañ leen dañ leen watat ñuy jooy waaw ñuy yóbbu ca kër ñu naan di nga sëyi force de waaw waaye man nag man góor gi ki ñuy takk sax di ko yóbbu muy bañ kooku wane na kéem waaye góor gi ne yëng nag di ko xaar naa di ko xaar <laughs> bu bu miinee rek da nangu waaw ah, meeree dalal xelam ñoo naan ko bu miinee xel ma dellu si <laughs> sëy yàlla waaw léegi xale yi nekkatuñ si foofu léegi yooyu mooy yooyu mooy ay problème quoi xam nga tamit pareen saa yi Euh, il faut que tamit nga xam ni. Mm. lii sa cër la mais sa doom tamit aussi am na loo xam ne mën nga éduquer mën nga def ngay def yëpp. waaw xam nga mais parents saa yi am na am na ñoo xamante ni bi am na ñoo xamante ni bi moom neexuñoo may jabar. parents am na ñoo xamante ni bi tamit neexuñoo may loolu. macha allah parents saa yi di nga gis am na foo xam ne parents am raison mais am na foo xam ne moom teguñu fa benn raison. parce que xam nga lu fay teg. Mm. ay nawle ay du sa kii du sa laa comprendre nga yooyu ñuy teg noonu yooyu dëgërut quoi mais nag ab wëy wala koo xam ne ab kii moom am na ñoo xamante ni bi moom wax dëgg fa yàlla mm. soxla wut nga leen di may kii mais nag bu dee nit ku correct na doon mm. jullit mm. yow ah, dëgg fa yàlla nag bu la ñaanee macha allah waaw macha allah jërëjëf kon ba suba ak jàmm incha allah ci kàttan borom jërëjëf euh, Doudou Thiane ñu ngi koy gërëm bu baax a baax bu ko defee may dénk sama mbokki jeunes yëpp daal ñu ngànnaayoo li ñu sëñ Maguette Fall waxoon laal la suñ kilifa gi ñu jàngaloon alxuraan ay doom a ngi fii neena boo duggee ci kër dangay ngay nopp kilifa gi doog a nopp ndaw si nee na nga wut baatam ba pare ba kilifa yi ni mën nañ nga doog a dugg suñ màggat Fall loolu la wax nee na man son bi su may dugg sa kër yow laa la naa la nopp ba pare doog a nopp sa doom nee na su ma la nobee ba nga nopp ma yow ba pare léegi day yomb ma dugg laaj sa baatu euh, doom sa doom su nee waaw rek ma doog a dugg waaw sëy ba day neex waaw waaw waaw waa waaw kon gone yi di leen def noonu bu ngeen di dugg ci kër yi yéen nopp kilifa yi ba pare doogoon noom ndaw si ba suba ak jàmm